أدار يا الله سعي بقاء بفيق يا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi janloo ak nun di leen ndokkeel ci liggéey bu rëy bi nga xam ne mën nañu wax ndamal lislaam lépp la yépp la waaye ndamal xeet bokk ci ndam yi nga xam ne dafa bokk ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa li borom faye ci liggéey bi liggéeyal boromam ba ndam lu kenn amut euh, dañu wax ne Sëriñ Mbay Saar kenn la ci jàmbari Sëriñ Tuubaa yi nekkoon njariñ bis dafa jékki-jékki di tëgg teg gi wut sëriñ boobu si baa ngi fi bi sëñ déggee tëgg mi daal génn ba ci buntu kër ne ana loolu lu mu doon mu ne ko mbay saara de mu di ko nekk ba mu agsi mu ne ko ana li loo ci jublu mu ne man kan mbàkki nga xare ba am ndam te bàkkoo ma di la bàkkoo mu ne ko mbay saara dinaa bàkko de waaye sama jumaa jamay tabax ci Tuubaa su demee ba soror yenn sàng loolu mooy sama bàkk kon day mel ni kon sëñ bi bàkk na ay yoon ndax taxaw na ci njaarim bàkk muy sorooru njaarim yi dikk ba ci Tuubaa mu yëkkati loxoom bàkk muy sorooru Tuubaa yi dem taxaw ci digg Ndakaaru gañ ko nu sonal yëkkati loxoom bàkk wane ndamam kon ñu ndokkeel El Hadj yu fay bu baax a baax gannaaw bi ndokkeel sëñ Muntaxaa bi nga xam mooy kilifa ak ñëpp ndokkeel mu di yëpp sëñ bi ni liggéey mboobee dafa mel ni ndar ak ndakaaru da doon lu am solo ndax fa la yëf yi tàmbalee xam nga sëñ Fallou nettali la boppam ñuy dégg ci son yi mu waxtaane sababus dem gi ndar mu tàmbalee ci jaxase guñ leen jaxase tubaab bi muy am na benn euh, barab boo xam ne fu ñu doon réparé ay ay cachet la mu tudd tur wa maam Abdoulaye sëñ Fall daa jaar ci tur yi gis na ne sàmbala bi mi ngi jax soo Tuubaa te lu naqari la ko mu dem fekk fa kase sàmbala bi bokk ci ñuy defar muy laaj par benn ana ko bi ana ko moom bi ba ci abaag ci mu ko bi kon da ko dafa mu ci yàq mu doon defar lu noppi na sax mu ko xaaral ma iseen la ko ba xam la jël teg ci encre ji jël kayit du defar dara daal ko ci kase ah li kay baax na ndax te kayit bi ne mel ni ko ci amul soxla bi muy dem mu jël ko ndànk def ko ci poosam yóbbaale ci la nag bind nag ab leetar eh, eh, gouverneur général ne ko bu nekkoon Ndar ne mag maag maag Ahmadou Bamba man Samba Lo maag Ahmadou Bamba waajal ñu ngi ci sa kaw bettuñu la ñu ngi dal ci sa kaw comme cachet Samba Lo ngi ci ga day man Samba Lo bi ko bi dogoon loolaay indi nag roo xale yi bañ daan ne ca bi ci saas lañ ko daal jàpp moom yónnee ci Sëñ Tuubaa woolu ko tamam buy jóg ndigaleel yàllaa koy tax a jóg du jékki-jékki jóg noonu rek Euh, mu yëkk yebal maam Cerno mu dem leeral leen li ko tee ñëw ak lu ci aju donc ko leer leen li ci aju la ne ko ah, kon boog euh, fekk yebal na ay ay espèces ngir ñu yeli ko fekk ñi jaxase nee nañ ko moom kat ku dëgër bopp la boo ko dala wéy si ndax ndax tegu la fenn bam jot la yabal ñu koy jëli waaye maam Cerno ñooy leeral nag la ne ah, dañ ko xamutoon noonu waaye kon nag boo demee ne na daal di ñëw loolu gudd la dañuy bañ a guddal euh, waaye daal ca fam jaar ba buñ ko bëggee tàddeel ngir bëgg mu yéex a àgg bañ mën a jëli sëñ beeg yëpp waaye fekk na ndigal sëñ bi am ndigal borom daal di jóg jaar jeewal jaar kokki ba ni ñëwee Louga Louga nag la jële la jële saxaar ngir dem dem Ndar bi ñëwee Louga tañ xam ne tuwaab yi dañ koy wool tali bi yëpp dañu runga àndamoon ne ko doon ñu fi bàyyi ñëpp dugg ci saxaar gi tubaab bi wax wax ñu lànk naa kon léegi da ngeen ko bàyyee wago wi te ñëw yéen ngeen dugg ci wago wi ñu d'accord ñu duggee ci wago woowu nag la ta saxaar gi dem lañ lonke woo wago nga xam ne saxaar gi dafa leen fa demee nag euh, bari na fa ay xeexaw ndax bi mu agsee mi ngi njëkk a dal kër Ahmadu Ahmadu Xureyshin ndax euh, liñ koy dàkkante ci Xureyshin te moom yenn saa sam rek la bëgg mu tànn dal ak moom ndax ci suba sa nag lañ ko door a woolu bi mu xëyee waxtu yor yor la dem ci la dem wuy ji ba mu àggee nag la tasanteeg boobu ñu ngi yëkkati drapeau bi booba jamono yi colonial la booba drapeau France moo fi nekkoon lu ñu yëkkati eh, ñu ko xamee taxaw ngi sàggal drapeau bi ñu ko yëkkatee mu ne wëlbati woon ko gannaaw ñu ñëw dal ci kawam lu tax ngay lu xaw da nga koy xool mu ne man naa ko xool de waaye su ma xoolee nag waxtu yëkkati ko nguuru France ci suuf la jëm xam nañ ko ñoom xam nañ naka ji xam nañ ko mu doon ñu door a nangoon ne ko booy boo xool fu la neex bi noppee la door a àgg ci biir gouverneur parce que ci la def nag ndamam lu rëy loolu yi nga xam ne ba tey ñu ngi koy fàttali ko donc fàttali ko le 5 septembre bi weesu fii ci ndar muy ñaar rakkam yooyu def ko ngir ne dafa leen a bëgg a naqaral wala dafa bëgg a wane waaye déedéet day lum daa def te waxtoo jot naka jekk dafa fonk julli gi yor-yor waxtu yu mu agsi tasante naag waxtu wam ko daan def jot wala mu sànni der bi daal di kàbbar julli ñaar rakkam yu yàgg yooyu sëlmal ne ana ko ma doon woo ci yéen euh, mu nekk loo xam ne histoire du ko fàtte ndax boobu kenn ñemewut lu mel noonu ndax boobu tubaab bi ñëpp ko ragal ku ma sànni caali ba seen tubaab sax da ngay daw yooyu jamono ñu ragale woon tubaab euh, mu def loolee ñu ne xam nag kii dafa mel ni leen doon wax ci moom ne teguñu fenn nag yëpp dañ doon a xam ba mi ngi mer bay xotti ko fekk nag lu ko jiitu kon bi kay ne sëriñ su bare bare bare signé loo leen ñu ko xamee ci aswaar ku ci nekk signé bi mu agsee biñ ko signé loo dafa laaj ne nañ ma jox xalima bu musta bind aw fen ak daaju musta bind aw fen bind indi ko daaju bees ak xalima bu bees mu sab bind bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad mu nekkoon fanaan nga xam ne fekkoon suñu borom dafay am carte d'identité mooy ne lan mooy carte d'identité dafa wéetal yàlla képp ne yàlla dong ngay kenn amul soxna amul doom amul kenn juru juru kenn kenn juru ko moom rek dendut ak dara loolee nag ñu xam ne kon kii euh, la la leen tax a jóg ak la ko tax a jóg bokkut ndax ñoom la seen la loolu seen objectif bu njëkk mooy mooy far fi lislaam te moom tawxiid lay saxal gaynde googu ñu dégg ndar la woon ñi naan Dakar ñi ndar gi ndar la woon ndar lañ ko booleeg moom lañ bëggoon sottiwut am na fa nag lu jege weer ndax weeru safar la fa ñëw ndax xam nga safar la jóge 17 18 safar bi ñu màggal ci la jóge kibaar yi ci biir safar la àgg ndar nekk nag ba safar jeex bañ du gàmm yi ba ca catal gàmm ga nga xam ne gàmm waa ngi bëgg a jeex ci lañ ko doon door yóbbu dakaar bi nga xamee ne nag àtte nañ ko ndax ndar lañ ko njëkk a àtte ñu ko dañoo wax dañoo xool na ñett yi luñ ci def ndax dañ koy tëj wala dañuy faat ba kanam wala dañ koy exilé ñu mujj dëppoo ci ne nañ koy exile ci lañ ko ne yóbbu Dakar Dakar googu nag ñaari guddeem yu tar yooyee fa la woon wala ñetti guddi ndax dafa wax ne mi ngi agsi Ndar waxtu jant bi bëgg a so Dakar laa bëgg a wax waxtu jant bi bëgg a fekkit dafa wooroon nee na may waajal dog ak julli timis ndaw dikk woo ma ne ma ñëwal wuyu neen ma jug topp ca bañ asee ci bu bu néeg boobu nga xam ne néeg bu xat la ak lam-lam nga xam daan ko xawu caa xaj ba bi ñu ci dugg dañ ko dañ ko doon puus ngir bu dugg ci wax nañ tànk bi njëkk dugal ràbb gi mu jog gi dafa jab jab basar waaye neen saalituma fa de daan taxute mu yaaxal tànku càmmoñ bi ci dugal ko ndax la lépp na da ko si ñëwoon ak boromam ca Tuubaa ci jumaay Daaru Xudoos ji jàkk ji ndax booba jàkk door door la may dañ ko dañ ko sàkk sàkketu ngeer mbaa téeméer boobu noonu foofu la jamono toll fa la duggoon xalwa deelu yén saasam ci ne ko ci ci ci daraja jum bëggoon mu ne ko daraja ji nag nattu yee koy may mu nangu mu ne ko nag bis boo ne oh da koy ñàkk bis boo laajee fa ngeen ma jëmee da ñàkk bis doxee geesu danga nga ko ñàkk soo dox di wicc say loxo da nga ñàkk ay sàtt yu bari lañ ko tegaloon moo tax na musul ne oh néeg boobee nga xam ne luy gaañe luy fitnaale ma nga fa bëgg a julli mënut a julli mu jàng suuratu Baqara ak suuratu Ali Imran ci sun ba mu yaatal néeg bi ci moom wax na ne euh, néeg boobee rasulullahi fekk na ko fa nee na ko gis na rasulullahi mu doy mu dey ko lool deesu ko xam billahi soxna jaareet fekk na ko fa ñaaxaat ko soññaat ko ci liggéey bi nee na keroog gis na fa sun maam jaara mu di ko ñaax te di ko dolli dara loolu si Moussa Ka wax boo xoolee nag tukki bi li muy yaatu yaatu yaatu ak la ca nekk ci fitna nga xam ne lu ne def nañ ko ko gas nañ bënn taal ko sawara dugal ko ca takk nañ ko garab di diir ko ay ay fetal tiire yëpp jàmbatu ca dara waaye ñetti guddi Ndakaar la saa ci sama xel demee sama xel lu may jox rek mooy mooy mooy jël nga ne dal ci ko tubaab bi kon tar na ida dakartu dalika almabita wa dalika al amira wa thabota tar ila jahri bil nasi walakin dabba anil maahi na saa sama xel demee ca sama guddi ndakaaru yooyee sama panaan moomee ak gouverneur ba ba ba woon loola sama xel du dem ci lu dul jël nga na daal ci seen waaye yontu saa sama moomay tere mooy sama diggante loola kon day wan kon ndar ndakaaru pàcc la ba am solo yoonu géej gi ndax lépp moo ko sabab ndax la tax ñu yóbbu ko ndar la ko defee natt waaye natt wi dëgg-dëgg nag te ndar googee nag am nafa fa wax na ne def na def na def yoo xam ne du nekk mukk ci sama lami ndar ci boppam laata muy dem Dakar neen def nañ ma loo xam ne du ko wax mukk ci sama lami ni ñu defam ko ko ndar te doo ko dégg ci nett li jël ko bankaan ci cin teg ci taal ba mbax loolu nañ fa ak moom ci ndar muy yoo xam ne fu ne jaar nañ fa moom kon nag bu fekkente ne ndar la ja ndakaar la jaar ñu def ko fa jëf ju mel nii tey mu am fa ndam lu toll ne kon loolu day wane ne kon sunu Boroom nangu na ab liggéeyam te it symbole la boo xam ne ndam la ci yoonu murit ndam la ci Serigne Touba waaye ndam la nag ci umma islam bépp képp ku bëgg lu baax daal koo xam ne lu baax rek la tax a jóg dañu jàpp sa ndam la kon sunu fay na ko. kon eh, gannaaw waxtu yu guddut eh, kon loolu ëpp tënk la bu gàtt wane rek kon daal lépp eh, la ko sabab rek mi ngi jaar ci diggante ñaar yooyu muy diggante Ndar ak dakaar lu am solo lool ci yoon wi nga xam doon ko liggéeyal borom ba suñu ba nangul koo liggéey ba ba fay ko ci li mu ko ci fay te doon te lu tuuti nag ci lim ko faye li mu rëy rëy lu tuuti la ci lim ko faye ndax da doon wax ne lépp lu ngeen gis fii ci àdduna luy niru tiraanga suñu bon defal ma ko lu tuuroo ci ndab li la maanaam ndab lu fees ba tuuru la ca tuura lool la waaye ndab la moom àdduna tax koo jóg ëllëg rek ko tax a kon ñu xam ne kon lu ñu fi gis ci xéewal lu mu rëy rëy lu tuuti la ci loo xam ne lu ko suma fay la daanaka mutul asaka ja أدار يا الله سعي بقاء